sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp lu nu xam ak lu nu xamut lu nu yëg ak lu nu yëgul di balu xaq ñépp lu nu yëg ak lu nu yëgut lu nu xam ak lu nu xamut yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante dañu koy tënk ci lii ñuy wax niig niigal niig niigal nag boo gisee ku koy def mooy koo xam ne jàpp na ne euh, bu ko waree def tey suba mën na ko fekk bu ko waree def suba du ko yàkkamti day jàpp ne weer wu dee mën na ko fee fekk su ko waree def ci weer wi day jàpp ne moom bokkagut ci ñi nga xam ne seen dig day jege ci moo tax suñu borom doon wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci tàmbalib suratul xijri alif laam raa ayatul kitaabi wa qur'aanil mubiin rubbama rubbama rubbama yawaddu allazina kafaru ne ko bisa ngi ñëw yowmal qiyaama ku doonutoon dëgg dëgg jullit dana ngéejoo lool doon ab jullit ndax noflaay ba fa jullit ya nekk ña ca àggagul nam leen di xeeña ak nañ koy jube ak naataanga dañuy àndal ci seen jëmm yal nañu ci yàlla boole ne ñi ci des nag moom nga xam ne dañuy nig nigal di dem rek euh, bàyyi leen lu leen neex lekk lu leen neex def la leen ko teg mooy niig nigal moo ne sa kanam rek di leen woo naan tee ngaa bàyyi ba ca kanam te nga bàyyi ba ngoon te nga bàyyi ba suba tee nga bàyyi ba weer wi dee zarhum yaakulu wa yatamattaau wa yulhihimul amalu fa sawfa yaalamuun dal na bokk na ci lii wawal ab xool dëgg dëgg dëgg mooy niig niigal euh, jàpp ne ñi toll ni moom daal ay at néew na ñuy gis ñu fi bàyyi ko ndax ndaw la euh, am na ku seytaane waroon te bokk yi seytaane day wor nit ci mbooleem jaamu yàlla yi muy def sax su ko téyee ba di ko def dana fexe ba mu waru ca bu ko téyee ba di ko def dana fexe ba mu waru ca yal nañ ci yàlla musal kooku dafa ñaan yàlla yàlla wan ko seytaane ci melokaanam dëgg-dëgg suñu boroom xamal ko ne boo demee ci ja sàngam ab ja luuma yi am bi sàngam danga ko fa fekk muy jaay nàngam tuddal ne ko sax la muy jaay jox ko màndarga mu ñëw fekk mu sol maaka mu mag moo xam ne xool na xool daal maaka mii daal daanaka moom rek moo ko fi am mu wutali ko fekk muy jaay la muy jaay mu ne ko yow laa soxla woon ñu jóg taxaw mu ne ko xàmmee naa la waaye seytaane ne ko man de xàmmewuma la mu ne ko man xam naa ne yow seytaane mu ne ku la ko wax mu ne ko jëru ko amu solo waaye bettuma la daal di koy song seytaane daaneel ko ah mu kër kër yi ba jóg daaneelaat seytaane seytaane jóg fab ay bagaasam ne bala ñu ma xàmmee ba di ma sot sotoo waaye bu soob yàlla dootoo ma gis fenn mu gisaat ko feneen seytaane daaneel ko nag jël boo xam ne poids ba ko yàlla jox mënut a fexe ba yëngalub cër sax ma la di wangar ci ko génn paaka mu ñaw ba di ko bëgg a rendi ne ko yow jëraloo ma rendi sax koo xam ne juróom-ñaar fukki at doo ko dese ci àdduna mu jëraloo ma rendi ndax xam naa ne yàggatoo fi mu génn ne ah man danaa fi defaat juróom-ñaar fukki at kon de damay fab fanweeri at yi ak juróom nekk ko ci lu ma neex mos àdduna tuuti bopp du ma tey di julli du ma tey di jaamu yàlla waaye dama koy mbakkar feggu saa bu ma noppee ci di dem ca su fanweeri at yi jeexee ak juróom juróom fanweeri at ak juróom yi mujj ya nag ma jaamu ko yàlla gu ma dut booleeg dara ndekete yoo juróom-ñaar fukki fan ak juróom moo ko dese juróom-ñaar fukki fan a ko dese nga xam ne fi mu jaar ci pas-pas bu dëgër ak jaamu yàlla bay am aggu yàlla wan ma diw mu wan la ko su teg teggiwutoon tànkam mën naa gën a sori waaye dafa fàtte woon ne yàlla moo ne woon seytaane fa innaka min al munzarina ila yawmi al waqti al maalum maanaam da nga fiy nekk li fekk nit a nga fi defi ne moom nag waru jàpp ko mu fàtte ne yàlla ne woon ne seytaane fekk nit ñaa ngi fi fi jóge mu bëgg ko fa jële sañ moo ko war sañ-sañu gis yàlla astaghfirullah wax yàlla wan ma nangam mu wan la ko moo tax lekk ko ko teg weesuwut niig niigaan ba mu ko ne dese nga juróom-ñaar fukki at su ne woon lépp dama koy jaamu yàlla ci lu baax la ko dee di fekk waaye yal nañu yàlla musal ci lu ko neex dong la ko dee fekk ndax juróom-ñaar fukki daf ko ko yokkal ndeke juróom-ñaar fan kese la moo tax fa taala alayhim al amadu fa qasat qulubuhum bu ñu yaakaaree ne dana fi yàgg rek xool bu wow koŋ la ñuy daal di yor tàmbalee niig niigal di waaj ak a xaar rek ba far lay xew xew ci diggante bi yàlla ñu ci yàlla musal moo tax yonent bi mas naa taxaw ne kan ci yéen ñi mu bëgg a dem aljanna ñu ne teg mu laajaat ko ñu ne ko ñun ñëpp bëgg a dem aljanna mu ne ku bëgg a dem aljana nag fawu nga yor fawu nga euh, ànd ak yatt yii ba ca jiitu mooy gàttal sag néeg néegaal say néeg néeg daal bu mu yàgg lu dul xaaral ma lekk daal wala xaaral ma naan diggante boobu moom gàtt na te dem dem ca la nga war a def nee na ku la gën a gàtt néeg néegal mën na la jëkk aljanna waaye ku la gën a ne jàkk ay gëtam ba du attana xef ci dig bi muy wuy ji suñu boroom it mën na laa jëkk aljanna ndax kooka du ne ci leneen lu dul lu neex yàlla ñetteel ba mooy nga doxale sa diggante ak sa boroom kersa ñu ne ko waaw kersa nu muy doxal ci diggante koo xam ne tegoo ko ay gët mun ne kersa gi ñu doxale suñu diggante ak suñu borom mooy li nekk ci suñ bopp bi ci ay cër nañ fexe ba benn cër du ca mooy yàlla nopp gët gémmiñ ak bakkan waaye yi nga xam ne it euh, moo aju ci yaram mi ci des lépp mu fexe ba wattu leen ñoom itam muy ay yoxo ay tànk ak yeneen yi nga xam ne daf koy jëfandikoo léeg lekk ci lu dul ndigalul suñu borom ne yett yi daal ku la ko gën a sàmm moo lay jëkk aljanna waaye ba mu ca jiital mooy fexe ba sa niig niig bañ a yàgg jóge sax ci dëkk bi ñuy wax niig niigal teg ca ne it euh, bu amee ñeenteel saa su ne ngay fàttaliku dee ak ràpp ga cay dal nit buñ ko suulee ba noppi nis tuuti doo fa fekk lu dul ay yax doo fa fekk lu dul ay kawar doo fa fekk lu dul am kaang mu ne fang doo xàmmee kan la teg bëtam ku teg bëtam ci loola it doxale na digganteem ak yàlla kersa dana ruse jëf ni muy ruse nit ci jëf nangam mu di ko gis wala mu di ko dégg dana ko ruse digganteem ak boroomam yàlla na ko yàlla jàppandalal mu teg ce ne ku bëgg àllaaxira nag ju ju jaar yoon te mooy dem aljanna am ngërëmul suñu borom dana fi bàyyi àdduna moom ak lam àndal lépp àddunaa waxuñu àdduna ci boppam ndax adduna fi la ñuy fàggoo fële waaye addu lu addunaa kese loo xam ne njariñam fii dong lay tàmbalee te séentu wut mu jàll feneen te moo ne ab jullit de pas-pasam mooy luy am ci adduna rek bu ko dee def moom daa war a jàll àllaaxira nee na ku def yi mu wax daal yatt ba yent ba juróom kersa dox na digganteem ak boroomam bum rafet njort ci ku ko war a jëkk aljanna yàlla na nu ci yàlla boole Seydina Ali nag nee na sori néeg néegal fii ba déwén muy waaj mbir bay boo nga xam ne kooka fàtte na àllaaxira ndax àllaaxira ci diggante bi la nekk fii ak déwén la nekk ñun nag yàlla na ñuy weesu ay déwén yi déwén di dem Abu Daawud ne ku la gën a mën a néeg néegal moo lay gën a ñaaw jëf tey jëm ëllëg moom it yàlla nañu ci yàlla musal Seydina Isa alayhi te doon wër adduna bi àdduna bi ca jamono yam tollooloon mooy daal génn dëkk bi mu dëkk di dem ci dëkk yu sori yoo xam ne xamu fa kenn kenn xamu ko fa lu mu fa doon yóbbu jaamu leen yàlla mi nga xam ne moo yaayoo jaamu kese waaye bis romb na génn góor gu màggat ci naaj wi da ko faa romb ren ci jamonoy tàngoor wi rombat ko ci déwén sa jamonoy sedd jógewut fa mu toogoon mu wax ci xelam ne waaw góor gi moom lu baax lii mu fi nekkee te ma wuti néeg bu mu dëkk néeg boo xam ne bu naaj wi ñëwee bàyyi ko fi te bu sedd bi ñëwee bu ko tëjee mën a mucc ci sedd bi góor ga tontu ko ne ko ah lii nga ma wax day bari na ñu la jiitoon ñu ma ko déggee ci ñoom kon góor ga mag la waaye nag man li ma wër te mooy du ma dund lu ëpp juróom-ñaar téeméeri at gannaaw du ma jundu juróom-ñaar at nag sama xel xalaatut dafi tabax gannaaw du wees juróom-ñaar at sama xel xalaatut dafi tabax tabax xajut fekk juróom-ñaar téeméer at Seydina Isa teg ca ne ah de wóote nga ak ñi ñëw si kanam ñoom day ku ca dund téeméer ñu ne yàgg na fi waaye ña ngay jol jolal di dem rek moo tax yonent bi daana ñaan lu bari naan yàlla nañu yàlla musal ci bakkar boo xam ne day dox daf lay xiir ci niig niigal te niig niigal kum dund ci moom xay ko yiwu àllaaxira yàlla ci yàlla musal ne ko yàlla nañu yàlla ñu yàlla musal ci dund goo xam ne day neex a neex ba tere ñoo xalaat dee waaye yàlla nañu yàlla musalit niig niigal goo xam ne day dox sa diggante suñu digganteeg lépp lu baax lu ñu war a def loolu lépp nag bokk yi suñ ko boolee dañuy xam ne kuñ ne da nga fi am juróom-ñaar téeméeri at yaakaar na ko lool te teewul mu takkaatug laxasaayam bu ñu ko xoolee ci ki nga xam ne dañ ko ne juróom-ñaar fukki at nga fi dese mu ne day noos fanweeri ak juróom noppalu fanweeri ak noppalu fanweeri ak juróom nekk ci boppam mos neexeetu àdduna fanweeri ak juróom mu jaamu ko yàlla kon waru mën naa am ci ak jaamu yàlla yàlla nañu ci yàlla musal nam ñu cay musal nag mooy ñu fexe ba juróom benn yoo juróom yooyu ba juróom benn li yonent bi wax ne ku ku ca sax ku la jëkk aljanna la jëkk dee rek yal na nu ci yàlla saxal ba ca jiitu mooy gàttal néeg niigaan loo war a def daal ci lu baax gaawal bul ko nigi ngoon waxuma laa di ko nigi déwén weer wu dee waxuma laa déwén waaye ñaareel ba it ne jàkk sab gis bam jaral la bañ a xef ci kañ la digg bi di agsi ñetteel ba doxale kersa suñu digganteeg suñu boroom kersa suñu digganteeg suñu boroom nag lu ñu koy doxalee mooy euh, dañuy fexe ba cër yi nekk ci bopp gët bu mu xool lu mu warta xool euh, nopp bu mu déglu lu mu warta déglu làmmiñ bu mu war bu mu wax lu mu warta wax bakkan bu mu fóon lu mu warta fóon waaye cër yi des yaram yépp it benn bu ci nekk bu dee ay yoxo la ak i tànk yoxo ya mu bañ caa fexe ba laal lu mu wërta laal bu dee ay tànk mu fexe ba bañ caa dem fu mu wërta dem yeneen cëri yi desit yépp muy xaar ba jariñoo ko ci lu dagan jot rek mu dal ko caa jariñoo waaye it loolu lépp nag la ko tënk mooy di fàttaliku saa bu rombee ca armeel yi wala mu dégg ñu tàgge xelam na yar ci ñooñu dañ koo jiitu rek waaye moo cay topp te gis na ba tàyyi ñiy gas ba yàgg ñu daj ay yaxi kese wala kawaru kese kese nga xam ne bu fa gisul mool bañ ne diwo fi nekk du ko xam xàmme mën naa doon ku nekk ci moom te du ko xam loolu su ci su ci tegee bëtam bañ ko génne du ñu néegal ci dara ndax day xam ne ñi muy dégg ñu di leen tàgge seen wàll la ñëw rek waaye dañ ko fa jiitu waaye ma nga leen fay fekki waaye ku bëgg àllaaxira ju jaar yoon it lépp lu addunaa nga xam ne adduna kese kese la ca nit ña di cher ba tax ñu dugg ca moom na ko wan gannaaw nee na ku def loolu daal moom doxal na digganteem ak boroomam kersa gu mat sëkk qassirul amala wa thabbitu aajalakum bayna absaarikum wastaxyu min allahi xaqa alxayaa qaalu nastaxyi min allah ya nabiy allah qaal laysa dalik walakin man istaxya min allahi xaqa alxayaa fal yaxfad rasa wa ma waa wal batna wa ma xawaa wal yudakkir al mawta wal bilaa wa man araada al axirata taraka zinata zinata dunya faman faala dalika faqad istaxaa min allahi xaq alxayaa yal na nu yàlla dafa dégg ak topp te musal ñu seytaane ki pexeem yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimina amin